ami internet de vingt 24 actu ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ci seen beneen acte du jour bàkk ba jibati na ñu daal leen di xaymaal li nga xamante ne nii moo di résultat wu bi jëm ci jàngoro ji di coronavirus ci téeméer ak juróom fukk ak ñaar fukk ci ay test yoo xamante ne nii amal nañ ko juróom fukk yi ak ñeent ñoo ci daal di ñëw positif maanaam amee jàngoro ji ci biir lim boobu juróom fukk yi ak ñeent nekk ay cas contact. fukk yi nekk ay cas issus de la transmission communautaire cas yooyu nag fa mu feeñ bokk na ci Pikine am na lu toll ci ñaari cas. Rufisque am lu toll ci benn cas Yoff am benn Mermoz am benn Mbao am benn Parcelles yi am benn Touba am benn Médina am benn Jaxaay am lu toll ci benn cas mën nañoo jàpp ne rek ne fukk ak ñeent ci ay cas grave am nañ ko fii ci réewum Sénégal baña nga ca service de réanimation bu hôpital fan ak bu principal yeneen patient yi ñu hospitalisé ña ngay am tan bu baax a baax ci bésu tey bi nag mën nañoo jàpp ne bi fi mbas mi duggee ak léegi ci réewum Sénégal xayma bi mi ngi toll ci ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent moom la ñu daal di déclaré positif euh, ci réew mi junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett wër nañ ci ñeent fukk yi ak ñaar daal ci génn àdduna junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoom la ñuy saytu jamono ji ci lalu hôpital yi ba tax rek ministre bi di gën a ñaax askan bi ñu gën a respecté loolee nga xamante ni moo di mesure barrière yi ngir mën a mucc ci jàngoro ji di coronavirus ñàkkum takkum masque yi ci dëkk bu sell boobu lee di Touba ba tax ki nga xamante ni moo di ministre de l'intérieur di Aly Ngouille Ndiaye daal di ne jëlaat beneen dogal jëme ko ci ñàkkum takkum masque moomulee ndax nee na képp koo xamante ni gis nañ la takkatoo masque bi danga fay lu toll ci ñeent junne ndax nombre cas communautaire yi ma ngay gën di yokk ci dëkk bu sell boobu lee di Touba ndax ñàkk respecté loolu de masque yi tax na ba jàngoro ja ma ngi fay gën law bu baax a baax ba moo waral mu daal di yokk mesures yooyu nga xamante ne jëloon na ko ci ndax nit ñi mën a respecté di takk masque ci dëkk boobu lee di Touba. ginnaaw ay weer yu bëri jàngoro ji di coronavirus tax ñu indi woon fi li nga xamante nii moo di état d'urgence toftal ca lii di couvre-feu gis nañ ne ki nga xamante ni moo di président Macky saala dina dini dogal yooyu buñ sukkandikoo ci ëttu yëglekaay boobule di Dakaractu ngir fi ne arrêté boobu daal nañ koy signé par ministre de l'intérieur bii di Aly Ngouille Ndiaye ubbiwaat li nga xamante ni moo di baar yi ak restaurant yi ak lii di transport ngir may transporteurs yi bloqué woon ci seeni région yi mën a ñëw ñëwaat eggali seen liggéey te tamit du tee dañuy respecté li nga xamante ni moo di mesure barrière yooyu leen ay bés gi ñu génn guvernement bu Sénégal daal nay annoncé yokk couvre-feu bi ci lu toll ci euh, fanweeri fan ñu gis nag ci week-end bii xale ya nekk ca quartier populaire bu Pikine daal di nañuy génn di wax naan dañoo sonn dañoo maar ci li nga xamante ni moo di couvre bi ginnaaw bi nga xamante ni njiitum réew mi génn yokkute lii di fanweeri fan xale yooyu le dañoo lànk ne duñ nangu loolu nga xamante ni moo di yokkute googu ba tax ñu génn ca mbedd ya naan dañoo sonn dañoo tàyyi dañoo maar ndax couvre-feu bu buñ sukkandikoo ci ëttu yëglekaay boobu lee di Sénégal Assane Diouf dañu ko daal di arrêté daal di koy menotté ci direct ba nga xamante ne ni def na ko fële ca compte Facebook ay 6 heures du matin élément police ñoo daal di dugg këram daal di dajji buntu këram daal di ko yóbbu ñu xaarandi rek ba xam li waral mbir moomu samedi bi ñu génn ñàkkum ndox mu metti ca Cap Skirring ba askan wa yeewoo ca diwaan boobu doon fa amal ab manifestation ak takk der yi ba benn daam bu fa bal laaloon ci benn gendarme ba ñu yóbbu woon ko hôpital daal dinay mujjee ñàkk bakkanam buñ uskandikoo ci ëtt yëglekaay boobulee di SeneNews fukki at ak ñeent mu daal di ñuy dëdd moom ki nga xamante ne nii moo di Serigne Mbacke Soxna Lo nekk doom ci Serigne Cheikh Gaynde Fatma di doom ci Serigne moodul mustafa ñu di ko ñaanal rek fa mu nekk gënal ko fi fi mu jóge yàlla yokk ay leeram daal di ñuy taas ci barkeem a kenn du wax Serigne Mbacké Soxna Lo te tuddoo ki nga xamante ni nii moo di Bougane Gueye Dany nekk directeur bu D-Media tey naka ñu di ko fàttaliku muy tolloog fukki fan ak juróom mu am ko ci suuf nekkoon 2005 te moo ko bisu tey bii di premier join ñu di ko ñaanal rek yàlla yokk ay leeram daal di ñuy tas ci barkeem fii rek lañu koy nder keppee dig daje ba ëllëg ak jàmm